tey ci suñu sécurité président lay wax lu tax ma ciy wax mooy bu fekkente ne am na ñoo xam ne dañuy song ay weñ sunu gisee suñu président danañ ko song ñooñu nag avant ñuy song weñ yi bay ñëw ci pale bi di bandi indee bruit ñooñu war leen a teel a jàpp wala teel leen a surveiller ba duñu egsi ci palais boobu pour def fa jéey ju mel noonu ndax réew mii ñun ñoo soxla sunu président de la République Macky Sall lu tax ñu solo ko itam lu mu def ci réew mi kenn defu ko fi kon bu fekkee am na ñoo xam ne mere nañu seen kër ba na ñoo yàq dara nañ yàq seen kër yàq seen oto doo ko ñëw de di pale bi di di di def soow loolu monsieur le ministre loolu nañ ko surveiller beneen affaire bi aussi mooy BBC dugg na ci dëkk bi def fi ay enregistrement dox ci réew mi nu mu ko neexee te ñoom boo demoon ba Angleterre boo yoree sa caméra bu toll nii dara la laaj ndax am nga autorisation pour filmer te dugg nañu fii di filmer di jaxase ñan ñoo leen yónni ndax fu nu amee autorisation pour def ay interview loolu monsieur le ministre sécurité boobu ñu ngi la koy ñaan nga dimbale ñu ci parce que am na réew yoo xam ne boo fa wàccee caméra bu mag lu lay jëkk wax mooy fu an sa autorisation ba nga dugal fi caméra pour war a filmer te ñoom gis nañ leen ñu filmer fi ay opposition ñuy wax wax yoo xamante ne nii peut-être sax teguwul ci teggin wala teguwul ci temps loolu fu ñu ko war a jëlee monsieur le ministre ñu ngi lay laaj ci mbir moomu. beneen affaire bi drone yi ngay gis foo gis léegi drone mu nga fa te dëkk bi dañu soxla sécurité te drone am na dëkk yu mag yoo xam ne amoo droit di ko circuler te boo gisee fii ci réew mi koo gis mu ngi yor drone drone yi lan moo ci nekk ak lan lanu ak nga ay espion lanu wala lu doon lan la loolu monsieur le ministre sécurité boobu ñu ngi la ñu ngi la koy ñaan gën ko yokk. ñun ñi nga xam ne ñooy collectivité territoriale bi ñi nga xam ne ñoo ne ci mairie yi ñun suñu population suñuy chef village nee nañ leen su ngeen gisee gan informé leen su ngeen gisee ku dugg ci dëkk bi te xamul leen ko informé leen ñu ku ngeen gis mu dëkk ci koñ ci muy leen ko informé leen ñu loolu ñu ngi leen ciy dimbali ci côté boobu maa ngi leen remercier aussi ci police bi nga xamante ne nii ñun waa Ngexoox may nga ko te loolu incha allahu rabbi loolu danañ ñu danañ la ci ñaanal tàccu la ci sant la ci gërëm la ci parce que xam na ne yow nelawatoo guddi nelawatoo bëccëg ndax sécurité dëkk bi ndax dëkk bii boo ko bëggee sécurité ay nelaw waratu la te yow wóor na ma ne li ngay nelaw bareetul tukki sax defe naa dafa ko te dëkk boo ko yoree voyage yi sax waratoo koo def dëkk mel ni Sénégal bii parce que ñu soxor danoo bëri ñu iñaan danoo bëri ñu yéen wut jàmm réew